accepter de dialoguer ak le président Macky Sall. pour man dialogue ci démocratie lu normal la waxtaan ci démocratie lu normal la parce que nag mënoo ne doo dem dialogue te doo wàcc ci terrain bi pour xeex mënul nekk ko ça veut dire que tu es pour le statu quo si tu di que du waxtaan waaye tamit du ma xeex damay toog rek croiser les bras ça veut dire que tu pour le statu quo et jàpp nañ la le statu quo du woon loo xamante ne lu gën la donc waxtaan bu nit ñi def de ne dañuy dem vers des consensus nga xamante ne dafay transcender les appartenances partisanes li warul nekk pour majorité wala pour opposition wala pour qui que soit dafa war a nekk pour sénégalais damay rappeler ne li jëm si mbirum élection du mbirum acteur politique yi rek tey jii soo waxee dañuy dem élection da ngay jox rendez-vous au peuple sénégalais ñoom ñoo fay teew acteur politique ma daaneel foofu rek pour mhm. dire tout simplement que waxtaanee loo xamante ne ni sénégalais yi si boppam dañu siy bénéficier wu au-delà même des acteurs politiques dafa doon loo xam ne ku ne war na ko mën a def mm-hmm. mais damay yàgg di wax na ne na opposition préparé wu pour que su lu ñu amul si benn si waxtaan ñu mën ko am si xeex parce que nag ak yi fi am yëpp dans ce pays si xeex lañ ko amee mais est-ce que foofu du laajte du lajjite wala cuune bu opposition bi su fekkee ne ki ngeen di dialogueel il est le président de la république mais également chef de parti ñu dégg ko mu ne carrément euh, euh, garab gi nga toog doo ko dagg donc ça veut dire que foofu du ngeen ci am ak i muy dindi chef de parti bi ak ak ak président de la république ngeen di dialogueel koo xam ne dañ di ne dem leen ngeen waxtaan koñ boo xam ne jubóolu leen ko ngeen indi ko ci man mi nga xam ne je le président de la république et je suis chef de parti boo xam ne ay élection mi ngi am même su fekkee bi mooy dernier mandat am mais am nañ local am nañ législative est-ce que du lajjite du lajjite opposition l'un n'exclut pas waxtaan terewul xeex xeex terewul waxtaan c'est li ma bëgg a wax foofu mooy euh, su dee dañ ne point yi ay point la yoo xamante ne non seulement dafa concerner acteur politique yi mais dafa concerner sénégalais yëpp war nañu mën a ñëpp toog xool nan la ñuy def ba point yooyu ñu ñëpp am si satisfaction parce que normalement suñu waxee bulletin unique mais ban théorie lañ ñu mën a tegal ba jàpp ne bulletin unique va et favorable à l'opposition normalement ku war a ñëw war a voter mu am euh, euh, nga gagner du temps xaalis bi si boppam euh, mu wàññeeku et cetera loolu ñëpp si am avantage loolu laa bëgg a wax na ne point yooyu yëpp jaadu woon nañu toog xool nan la ñuy def pour que ñu régler ko une bonne fois pour tout bu ñu fàttalee le code consensuel de 92 moo ñu indi si ay élections yu bëri yoo xamante ne moo indi ay alternance mm. donc waxtaan pour man bu mënuñu ko dàq. et pourtant dégg nañu mais pas. Mm-hmm. su xeex jotee. wala taxaw taxawaay boo xamante ne dañuy war a bañ ñu def ko parce que nag loo mënti wax am na ay quelques aspects yoo xam ne accord am na si wax naa la ko. Mm-hmm. mais li ñu seetlu ñun mooy am na yeneen yoo xamante ne. finalement président dafa jàpp rek loo xamante ne jàpp na ne war na ko mën a joxe mais am na lu bëri loo xamante ne ba léegi mu ngi fi téye te loolu gisuñu benn raison. Mhm. buy war a tax mu téye et pourtant code consensuel bu 92 boobu bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Matar Diop lu ci bëri dem na ba jàpp je pense 70 ou 80 pour cent euh, ci code consensuel bu 92 boobu moom la ñu gisaat ci code électoral bi donc jarul woon amaana yuuxu bi opposition bi di yuuxu jàpp ne peut-être code bi dafa am lu ci dëxëñ yoo xam ne baaxul. lan ngay tontu ci loolu non xam nga xam nga mbir mi du question de lu ñu si dëxëñ. mbir mi mooy lu ñu fi waroon def te defuñu. ko si lu ñu si waroon xool te xooluñu ko si. ensuite les loi dafay évoluer moo tax ñuy wax la la loi est l'émanation de la volonté populaire et la volonté populaire s'exprime par rapport à un contexte quatre contexte 92 ak contexte 2021 contexte yu wute la donc war nañu mën a en 2021 wala 2019 bi nga xam ne commencé nañ waxtaan bi. xool par rapport ak contexte bi yan réforme la ñu war a mën a def mu gën a wu à l' évolution de notre démocratie donc le fait de dire que 92 la woon ba léegi d' loolu c' est un aveu pour dire qu'on n'a pas beaucoup avancé justement il faut avancer sooy xool lu fiy gën a lu fiy gën a fës mooy l' article bu ñu teg boo xamante ne ne mooy article l bi ak L L29 bon L29 L30 la pour loi bi loi bële L30 L31 la. bi. non loolu la numérotation mooy non loolu la d'ailleurs loolu c' est une manière wala nga waroo waroo jël loi bi tel tel quel bon peut-être que nañu wax ne ne euh, numérotation bi moo changé d' accord mais tey le dossier Karim Wade et Khalifa ay xalifa Sall mais l' opposition l' avait exigé pour qu'on le mette dans le dialogue mais tey mënuñu taxaw naa ñu la loi est impersonnelle loolu c'est vrai la loi est impersonnelle et générale mais ban pexe la ñu mën a def pour ñoo xamante ne dañ leen tere injustement ñu présenter wu à des élections parce que tout simplement dañ leen a ragal nan la ñuy def pour ñu delloo leen seeni droit ba ñu mën a nekk ay candidats mais loolu ça a été un élément du dialogue boo xamante ne opposition bi daf si xar tànk tubéyam donc pourquoi jëluñu ko en compte si Euh, réforme yoo xamante ne def nañu ko ñu def comme si loolu musuñu ko wax comme si loolu ñoru leen alors que ñun daf ñu ñor parce que dañ jàpp ne réew moo xam ne président de la république wala ay ñoñam am nañu possibilité tere ku leen neex parce que jël nañ dara gàkkal ko sa der les les tribunaux internationaux yoo xamante ne yu gën a jege wala ba ba yu gën a sori yépp constaté nañu leen sooy jëlee kaawu Khalifa Sall rek cour bu CEDEAO bi nga xamante ne parce que yaa ngi dégg ñu naan protocole additionnel bu CEDEAO moo tax si mois avant bi ñu yàkkamti ko pour bañ ko def mm-hmm. ah su dee da nga respecté loolu protocole CEDEAO bi mais cour CEDEAO lan la wax cour de justice si kaawu xalifa Sall nee na même présomption d'innocence n'a pas été respecté kenn respecté wu ko ça veut dire que jalgati dafa am si procès Khalifa Sall jalgati aussi dafa am si procès Karim Wade te ñëpp xam ne droit fond bi ak forme bi dafa am solo procédure dafa am solo loo si jalgati dafay dafay remettre en question énormément de choses waaw su dee loolu am na mais ñu poser ko comme question mais je pense que le minimum mooy loolu ñu jël ko en compte su dee bëgg nañ stabiliser la vie politique su dee bëgg nañ mu am la paix sociale su dee bëgg nañ vraiment ñu delloo ñoo xamante ne dañ leen a leen a euh, tere seeni droit ñu delloo leen seen droit malheureusement ce n'est pas le cas. alors président damay dégg ñu naan dialogue ak échec donte sax ñaari at a ngi nii ñu ngi ñu ngi def waxtaan ak lépp lu ci mën a xew est-ce que wanu mën a mën na war nañu mën a jàpp ne dialogue bi échec la jur ci kaw bu ñu xamee ne naam point de désaccord yi rek la ñuy waxtaanee mais dañuy fàtti di wax ne am na lu toll ci ñaar fukk ak juróom muy vingt-cinq points yu nga xamante ne nii consensus am na ci est-ce que aujourd'hui avec sa mën nañu wax ne dialogue bi échec la. non xam nga ñàkk jalog moo njëkk a doon échec. Mhm. bu leen fàtte ne en mille dix-huit su ma man bokkoon naa si ñu jàppoon si affaire parrainage bi boobu dialogue amul woon force moo amoon nit ñi xeex nañ ñu jàpp ñu dugal ñu si kaso yi euh, parenage ba jàll gis ngeen conséquences yi mu am te ba léegi ñu ngi continuer wu di agrippé wu si parrainage bi donc ñàkk dialogue déjà échec la pour ñëpp donc su dee ñàkk dialogue échec la jaloog mën na am ay acquis wax nga ko léegi am na ay consensus yoo xamante ne am na entre majorité et opposition bi mais ce n'est pas le plus important parce que su dee ay suffrage direct la soo nee suffrage direct mais suffrage direct encore une fois amoon na fi sooy jël kaawu ville yi wax naa la ko léegi amoon na fi donc dañ ko indiwaat c'est vrai indiwaat nañ ko baax na mais du plus-value du loo xamante ne vraiment day renforcer. totalement démocratique mais dafa fekk mu nekk ay poñ yi nga xamante ni président nag yenn ci poñ yi nga xam ne ci bokk na ci vingt cinq points consensus yi dafa am proposition yi ci opposition bi def ñu nangul leen ko loolu est-ce que mënoon ko bàyyi mu neen nii rek est-ce que itam du lu ñu war a mën a rafetlu par rapport ak. ci vingt cinq points yi la wax cest dire que mm. cest que euh, consensus soo ko déggee. Mm. du question de opposition bi lañ nangul. Mm. xam nga suñu nee nangul nañ rek nañu wax ne bañal nañ leen. parce que loolu mooy contrat mooy mooy mooy mooy mooy euh, mooy. mbir mi mooy mbir mi waaw soo bëggee opposé da naan ba nangul nañ leen waaye teg si aussi bañal nañ leen. Mm-hmm. ça veut dire que finalement mbir mi nangul ak bañal la mujjee. Mm-hmm. su dee nangu ak bañal la mujjee jaru woon dialogue. Mm-hmm. na président jël ay décision xam na problème yi mu jël ay décision mais consensus suñ ko waxee ça veut dire que ñoom seen bopp gis nañ seen bopp dama lay jox benn exemple bu ndaw. ba ma nekkee député à l' assemblée nationale am na benn député boo xam dafa nekk si majorité bi. mësoon na wax mbirum suffrage direct bañ ne ñoom dañuy def proposition de loi parce que moom dafa waroon nekk maire quelque part ñi def ay ay lijjanti te moom moo defoon campagne et ñu def ay lijjanti ba fal beneen maire bu dul moom mu ne moom dafa bëgg ñu voter loi pour que mu am suffrage direct donc suffrage direct du intérêt opposition rek intérêt aussi majorité intérêt acteur politique la loolu tax mu am consensus donc luy am consensus bu ñu wax ne opposition bi lañ ko may déedéet lu ñoom lu ñu d'accord la ñun ñu d'accord si ñëpp d'accord si ñu ne nañ ko tegee boor mm-hmm. lu ñu d'accordul bokk na si dama lay jox exemple bu ndaw ba président Wade nommé Cheikh Gueye si wetu Ousmane Ngom pour mu gérer chargé des élections euh, élections yi président Macky Sall la moo nekkoon kiyam dem leen internet loolu daf ko dàq dafa ne benn la te président Wade au moins def na effortu chargé benn jël personnalité indépendant ne ko géral élection yi kii peut le plus peut le moom mu dénk ko tey ministre de l'intérieur moom mu doon loolu. ne loolu c'est insuffisant. il n'a pas fait mieux. ñëw def ko n'a pas fait mieux. Mm. cest dire que dafa delluwaat moom si moom lu mu doon kaas. ne loolu mooy dëgg loolu mooy am. mais organe ngeen wax de organe indépendant organe indépendant ngeen wax yéen. maanaam wutee na sax ak li nga xamante ne moom le président Abdoulaye Wade tegoon mu ministre chargé des élections waaw mais xam nga organe indépendant personnalité indépendante lu si am solo mooy indépendance bi mhm. parce que nag président Abdoulaye Wade par exemple exemple boobu mu jëloon dafa pratiquement euh, dagg poire bi en deux looloo taxoon mu def kii bu mel noonu mais président Macky Sall deful sax lu mel noonu dafa insister Euh, pour bàyyi fi le ministre de l' intérieur waxuñu ñu jëlee fi le ministre de l' intérieur ministre de l' intérieur a d' autres prérogatives mais on parle de l' organisation des élections amalgame boobu la ñu war a dindi euh, mun na bàyyi nommé ku ko neex parce que moom mooy nommé nag ñu koy jàppale loolu kenn yoonu kenn waru si nekk mais loo xam ne ñëpp ko bokk muy organisation élection yi mu nga xamante ne ne day laal le processus électoral te loolu day jouer sur la transparence des élections ñëpp xam nañ ne élection yi problème bi yëpp c'est en amont